médecin bi bu juddoo fekk baayam di defar courant itam day jàngi naka la ñuy monter ay prise naka la ñuy roofee ba ci journaliste bi lenn loo xamante ne si nit baayam daf koy doon mu judd faste ay loxoom daat koy doon loolu amul kon loolu mandarga laa ciy wane rek ci ne xam-xam daf koy jàng beneen itam yi saa ngay dégg ku naa kuy taxaw fële di ndamoo ne moom daayir ay jinne ma wax ne koo gis muy ndamooy jinne daa xamul valeur doomu aadama daa xamul moom mooy kan moo tax muy mottali ko jinne waaye day mel ne jëmmi doomu aadama moo gën a foor jinne waaye jëmmi doomu aadama moo gën a matale jinne waaye jëmmi doomu aadama ci jëmam moo gën a riis jinne loo xam ne yàlla daf koo bind doomu aadama la ci gën a favoriser wala xadd karam naa bani aadama wa xamal naahum fil barri wal baxri wa razaqnaahum min at-tayyibaat te day mel ne jinne doomu aadamaa ko ëpp xam-xam ñi tax doomu aadamaa ko ëpp xam-xam moom mooy jinne day xam di fàtte xam nga jinne dañ lay wax ne maanaam démb mbokk ko laajoon ci dara waaye lépp luy bëgg a ñëw man na la ko wax doomu aadama nag man na laa wax li weesu man laa wax li teew kon day mel ne doomu aadama maanaam moo gën a riis jinne ci xam-xam moo gën a foor jinne ci xam-xam may faral di wax ne ñu baree bari li leen dal mooy ñàkk a jàng xam-xam ñàkk a gëstu luy xam-xam moo waral ñuy jël dara di ko tef ci seen kaw ak di ko motuloo man nag ma di la wax foofu ne man seexu naa ju biiruma ay jinne man Cheikhouna Diop doon ma xam-xam man xam-xam dama ko jàng jàng gi ma ko jàng nag moo waral ma xam ci loo xamante ne si biir na ma ne moo gën a gaaw jinne moo gën a garaaw jinne li. Mhm. waa li si xaar maanaam buñ ci duggee dañuy dugg ci lan mooy ak sëriñ. ak sëriñ day am juróom yi ko composé yoo xamante ne si juróom yooyu kenn ko benn bu ci manqué seyxul asrar bi ak sëriñam du mën a mat. yaa ngi dégg ndax boo gisee ñu baree bari umpaleeg sëriñ day mel na li war a composé nit ki pour mu mën a nekk ab sëriñ maanaam daf leen a manqué yaa ngi dégg ndax sëriñ bi balaa mat ab sëriñ dëgg faw day xam ilmul adat bu wér a wér ilmul adat boo ko xamul mooy xam-xam wàññi mën a xam siivur yi bu baax a baax mën koo maîtriser ilmul adat boobu ci lay mën a sukkandikoo ba xam lan mooy almu tabia almu tabia itam di ñaareel ponk boo xamante ni si bu ko sëriñ bi matut ma euh, xamul mënta fexe ba nekk nit ku mën a xaar wala nit ku mën a seet almu tabia mooy tey tabia yii nga xam ne dafa am muy naari yu turaabi yu hawaay ak maay yu loolu mooy xam-xamu euh, ngelaw maanaam euh, sawara ndox ngelaw ak suuf yooyu yëpp nekk ay yoo xamante ne si yàlla daf ci bind ay xam-xam yoo xamante ne si maanaam doomu aadama bi su ko maîtriser day nekk nit ku li fekk maîtriser ko nag du nekk nit ku mën a seet ndax tey asamaan si tey niñ koy xoolee xam ne biddiw sàngam su génnee malaakam sàngam moo xam ne biddiw sàngam su génnee malaakam sàngam moo aaye noonu laamaatee xam-xam boo xam ne yàlla daf koo def ci biir suuf nga xam ne dañuy xool suuf si xam ne suuf si tey su melee couleur sàngam ndax suuf si boo amee xam-xamu suuf da nga xam ne suuf si day xaw di soppiku yii saa nga xool suuf si mu rafet lool yii saa nga xool suuf si mu mel ne lu xaw taq yii saa nga xool suuf si mu ñëw indaal ay ngelaw yii saa nga xool suuf si mu ñëw ànd ku naaj wu tàng jër yii saa nga xool suuf si mu ñëw indaale ngelaw lu sedd guy yéesaa nga xool suuf si mu rafet rafetaay goo xam ne doo bëgg lu dul tudd ci seex su ko defee yooyu yëpp dafa am ay melokaan yoo xam ne su ko melee dañuy xam ne kon malaakam sàngam moo aaye ci biir suuf si ndax gis nga ni ni biddiw asamaan si yaa ngi dégg ñu naan sams xamar marix ontaarit yooyu yëpp ni mu amee noonu la amaatee malaaka yoo xam ne dañoo occupé waat suuf si waaye amaat malaaka yoo xam ne dañoo occupé waat asamaan si tey boo duggee ci malaaka yi nga xam ne dañu occupé si da ngay a wax comme niñ koy limee ay jabrayaayilu ay mikaayilu ay na anzasil ah, ah, yooyu yëpp boo demee ci asamaan si da nga fay fekk ay israfil ay jibril yaa ngi dégg yooyu yëpp nekk ay malaaka yoo xamante ne si ku ci ne day am asamaan soo xam ne yow yaa ko occupé am loo xamante ne si maanaam ci war wërsëg yàlla daf la koy dégg su ko defee ne doomu aadama bi kon bu xamul an mu tabia du mën a nekk nit ku mën a seet waaye loolu du mën a nekk seexul asraar bu mat sëkk ilmul xawaatim mooy nit ki mën a dagg xaatim su daggee xaatim bi mu mën a xam xaatim bii nii ndax ngelaw maanaam dañ ko war a wékk wala dañ ko war a suul wala dañ ko war a taal wala dañ ko war a sànni ci ndox mi wala sax xawaatim bi ku koy bind ci kaw suuf nga war a taxaw wala ci kawum ndox nga war a taxaw ndax fi mu ne yiisaa nga gis koo xam ne day bind xaatim boo xam ne bi koy bind ci kawum ndox la waroon taxaw mu toog suuf di ko bind su ko defee xaatim boobu su ko jëlee jox ko mu sangoo ko mën naa toj gàllaaju nit mën naa yàq lu bari ci nit mën naa dëpp mbirum nit su ko defee loolu mooy tax ñuy wax ne xam-xam kon dañ koy jàng waaye xam-xam def ko doon su ko defee boobu nga may ma tuuti rek mu nekk point bu am solo boo xam ne dama ci bëgg a loo xamante ne si ñu bari ñoo xamante ne si dañuy dañuy làmbatu xam-xam danañ ko xam bu baax a baax kon almul xawaatim xam-xam la bu yaatu boo xamante ni si maanaam yonente yàlla Souleymane moo ko fenn woon di ko jàngale moo tax wax sax nga dégg nga xaatimu Souleymane waaye xaatimu Souleymane di ci benn ponk nga xam ne maanaam dafa am maanaam mën naa ne ba ca xasru buy nga xam ne day nekk junni xaatim ak nangam yoo xamante ne si tey doomu aadama su ko maîtriser wul wërta maanaam maanaam nekk sayxul asrar ndax médecin bi balaa mën a nekk médecin boo xam ne day faj daa war a jàngi maanaam ba am bac dem université ba génn maanaam xam bu baax a baax lan mooy médecin su boobaa ci lay mën a xamee nit ki su nekkee boppam day metti dañ koo war a jox aspirine wala dañ koo war a pikiir wala dañ koo war a sax bindal wala dañ ko war a sampal biteel léegi su nekkee ne médecin bi xamul yooyu yëpp nag médecin boobu dansé lay doon ci société bi su nekkee ne itam seyxul asraar bi xamul yii ma la wax yëpp itam dansé lay doon ci société bi fi mu ne yii saa ngi gis mbër moo xam ne daa daa daanu te fekk ne lawoon ci moom entraîné na ba entraîné na ba am doole waaye boo xoolee maanaam maanaam maanaam euh, sëriñ ba moo ko daan tegu ko. yaa ngi dégg la koy waral mooy entraîné na ba am doole waaye sëriñ bi moo ko jox lu tëj mbiram su ko defee itam xaalimul xawaatim su ko seexul asraar bi xamut kon mënta nekk seexul asraar fi ne itam am xam-xam bu am importance boo xamante ne si itam bu ko doom bu ko seexul asraar bi xamul warut a mën a nekk ab sëriñ. mais ba mhm. mhm. waaw léegi su ma damay damay daaneel rek ci juróomi ponk yooyu nga xam ne bu ko doomu aadama bi xamul mënta nekk seexul asraar ñu ñu ñu ko foofu ma ma ma su ko defee loolu danga nga xamee maanaam li waral réew mi toll fii ndax doomu aadama lépp lu mën a doon biddiiwam daf la koy jàngal lépp lu mën a doon malaakaam daf la ko jàngal lépp lu mën a doon bisam daf la ko jàngal su ko defee itam doomu aadama bi mooy almu almu nujum almu nujum mooy xam-xamu biddiw xam-xam boobu nag nekk xam-xam bu sensible boo xamante ne si day mel ne bépp doomu aadama war naa xam lan mooy biddiwam ndax ci leen mën a xamee lan mooy weeram ndax fi mu ne saa ngis doomu boo xam ne lum néew néew doole ana bis boo xam ne comme ci songal da lay daan yaa ngi dégg ndax bis boobu biddiwam daf ciy daw bis boobu daf ci ànd ak cawarte bis boobu lum ci wuti daf koy am yaa ngi dégg noonu la amee doomu aadama bi tey su doon dem ci làmb ji war naa mën a xam moom ban couleur la war a sol boo xamante ne si tey fim ne am na tey ngem loo xam ne tey rek su amee ci ngembul nit ki ngembam loolu ku ko jàpp da daan te loolu yëpp maanaam day am ci jëmmi doomu aadama ndax doomu aadama lépp a mystique la léegi loolu nag su ko doomu aadama bi xamul maanaam mënta woo mën a wax a wax ba ñaala nit ki mënta mën a wax ba ngemmul nit ki fi mu ne yéesaa nga gis mbër moo xam ne tey bu demee ci ci ci ci ci làmb ji mbiram ab sarax dong la laaj sarax boobu nag fi mu tey bu ko sëriñ bi xamul te mënu koo xam ndare daa xam yi ma la wax ndax nit ki boo xam xamul biddiwam mënoo xam saraxam boo xamul weer wi mu bokk itam mënoo xam saraxu rabam ta nit ki tey su xëyee di dem def saraxu biddiwum def saraxu rabam wallahi laasim lum néew néew doole kum jàpp da lay daan yaa ngi dégg su ko defee itam moo tax démb rek biñ toogee fii di waxtaan maa ngi koy leeral ma ne nit day toll ci digg dooleem day toll ci jamono yoo xamante ni si kum jàpp da am problème yaa ngi dégg euh, su ko defee nag day mel ne tey boo xoolee Ousmane Sonko dafa toll ci digg dooleem ndax loolu gis nga nguur yàlla moo ko joxe te nguur yàlla rek moo dul jeex da ngay dem ci alxuraan moo lay wax loolu da ne qulillahumma maalikal mulki tuutil mulka man tasaa wa tanzi'ul mulka mimman tasaa yaa ngi dégg wa tu'izzu man tasaa wa tuzillu man tasaa bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir tuuliju layla fi nahaar wa tuuliju nahaara fi layli gis nga day mel ne doomu aadama léppam yàlla daf koo programme ba noppi fi mu ne tey gis nga Macky Sall deux deux mille douze moom bu xooloon doole ji mu amee woon ba nga xamante ne si maanaam booba su taxawee su génnee ñëpp koy topp bokkut ak doole ji mu amee xam nga loolu lan moo ko waral 2012 bi diiwam dafa fenkoon di def nii di yéeg. ku mu yéeg ci sa kaw da nga problème gis nga biddiw boobu nag biddiwam boobu mu bokkoon jamono jii ñu toll maanaam dafa tàmbali di wàcc di def nii di jëm nii ci suuf su ko defee biddiw Ousmane Sonko maanaam tàmbali di yéeg di def nii ci kaw moo waral nit ñi dañ koy bëgg nit ñi dañ am ci moom yërmande nit ñi da ngay am ci moom cofeel goo xamante ne si yow boo toogee sax danga naan waa lii lan la est-ce que lii bayra la est lii neen la est-ce que lii du sacrifice ndeke loolu lépp yooyu yëpp mën na ko bañ a doon mais coobare suñ borom lay doon yaa ngi dégg mbir day toll foo xam ne ab sëriñ defu ci dara euh, kenn jàpp ci maanaam coobare suñu borom muy dogalub yàlla. gis nga dogalub yàlla boobu nag su Macky Sall amul maintenir pour mu mën koo nangu du yomb yaa ngi dégg gis nga Senghor bi mu fi nekkee dafa amoon maintenir u mën a nangu jëli yëf yi teg ko ci loxol Abdou Diouf xam ne yëfi yàlla rek dul jeex Abdou bi fi nekkee dafa amoon maintenir nangu Ablaye Wade opposé wu ko donte doon na ko jàpp di def ci kaso beeg yëpp mais teewul nangu na maanaam ñu bokk dem élection nekkul itam di ko xeex naan damay fexe ba du bokk ci élection yi wala nangam wala nangam. day ne boo gisee Ablaye Wade maanaam Macky Sall mi maanaam itam Ablaye Wade lim doon jàmmaarloo jàmmaarloo moom Ablaye Wade nekk fi woon naan damay xeex Macky Sall pour du nekk du bokk ci élection yi wala nangam wala dama ko yàqal waaye amoon na xolub mën a nangu Abdoulaye maanaam Macky Sall bokk ci élection yi fi mu ne gis nga euh, xol boobu maanaam Macky sàll mi dafa war a xam ne Abdou Diouf waru ko ëppale Abdoulaye Wade waru ko ëppale Senghor waru ko ëppale mu ubbi xol xol boobu xam ne réew mi mooy doxe loolu te gis nga fii nu toll day mel ne Macky sàll moo fi mën a jaaree defar sunu réew mi ba faw waaye day mel ne Macky sàll moo fi mën a jaaree yàq sunu réew mi ba faw li tax mooy su nekkee ne moom nangu na ne constitution bi mooy ko mu bokk ci élection yi yaa ngi dégg su boobaa dafay mën a jaar rëdd maanaam saxal suñu démocratie bu faw su nekkee ne nag daf ne moom force day bokk gis nga bokk googu mu bokk moo xam daa gañe moo xam gañewul waaye ci lay jaar violer suñu doole yi réew ba faw ndax ëllëg keneen day ñëw dem ba mbiram jeex mu war a wàcc daan ne déedéet du ma wàcc ndax diwkat bi mu tollee fii constitution bi mayoon na ko mu bokk ci réew mi te loolu lépp constitution bi mayu ko ko waaye viole loi moo ko may. kon day mel ne kon day mel ne Ablaye waa Macky Sall mii nga xam ne moo jàmmi réew mi moo ko mën a te mënta wax a wax a wax ba wàcc wallaay lancim loolu. non loolu moom ci jëmmam moo ko gën a gisal boppam loolu du mbirum batin loolu du mbirum zahir day bëri yoo xam ne tey ko waxee dañuy jàpp sëñ bi da koo man bokkuma ci sëriñ yooyu dama laa wax ne la Macky Sall ci jëmmam. constitution bi moo ko wan ne ko sa mbir daa jeex xam nga loolu lu ko gën a amul loolu zahir la zahir bu xasee teew rek soxlaatul ñuy ñuy làmbatu baatin yaa ngi gis constitution bi moo ko wan ko yow ñaari mandat nga am mënoo am mënoo am ñetti mandat kon loolu ci jëm moom amul sëriñ bu naan dama ko gis ak ñàkk gis nga ñàkk gis kook ñàkk koo gis Macky Sall mënatoo bokk yaa ngi dégg loolu yàllaa ko def loolu kay dangay am xolub man koo nangu nga nangu ko mënu mu woyef mënu am xolub man koo nangu nga ñàkk koo nangu mu metti loolu foofu la toll. waaye sëñ bi muy muy. saa kees ak day mel ne ku yàgg a topp samay waxtaan ci gannaaw tuuti wax naa ci muy combat boo xamante ne si itam combat sarax la man nag la ma leen waxoon rek laay wax waxuma ne diw mooy daan ndax man dama deme ci réew mi deme ci ñoom ci seen biir noo xamante ne si man munu ma wax ci benn ci benn côté ndax ñoom ñëpp samay waay lañ ndax man yàllaa ma def may xaritu ñëpp yaa ngi dégg waaye combat boo xamante ne si combat la. Sa Thiès am na lu ma ko waxoon wax moo ne ko da ngay daan wala nangam waaye ne woon naa ko fii mu jàpp nii ci continuer ay saraxam yaa ngi dégg ci fonk ay saraxam su ko bàyyiwul yàlla mën na koo jàppale. loolu nag teguma ko ci ne damaa gis wala nangam man lépp lu ma lay wax dama koy natt ci bànqaas xam-xam wax la ko yaa ngi dégg day mel ne biddiwam dafa féete kaw actuellement biddiwu rëg-rëg day mel ne malaakam suufam dafa ëpp doole itam malaakam suufu rëg-rëg kon waaw bu dee ci mystique moom moo jekk wax dëgg yàlla. waaye nag làmb dafa doy waar boo gisee man làmb du ma ci nangu di sori ñun dañoo dëppee làmb ci nu ne. te man xam naa ne yàlla lum la may rek am na keneen lum lum may keneen lu raw loolu te ñun dëpp nañ làmb ci nu bu ma lay wax euh, làmbi Balla Gaye Tapha ju njëkk ja diggante biñ ko dëpp ak diggante biñ ko téyee danga naan loolu mënta ne su ma lay wax làmbi Siteu ji mu mujjee bëre ak Papa Sow diggante biñ dëpp làmb ji yaa ngi dégg te loolu ñi ko doon def sama kër lañ daloon dakaar Maris su ma la waxee diggante biñ ko dëpp danga naan loolu mënta ne. su ma la waxee itam maanaam euh, Boy Niang bi muy bëreeg Balla Gaye diggante bi nga xam ne ci lañ wëlbatee affaire yi ndax Balla Gaye keroog bi muy ñëw ci làmb ji ku ko waxoon doo ñibbaale victoire da nga xam ne boo ko xoolee di nga xam ne euh, gamul ne day ñibbaale defet mhm. su ko defee loolu lépp itam confiance même mystique daf ci foofu dañoo da maanaam diggante bi ñu dëpp làmb ji moo doy waar moo tax ma di la wax ne man non nit mbër mën na ñëw ci làmb ji dem ba àgg fa fekk ne moom sarax bi ko war a jox làmb ji xamu ko su xamul sarax boobu moo tax ma di la wax ne gis nga mbiru mystique dafa doy waar te gis nga dafa am xam-xam yoo xam ne su manqué ci nit ki mënta ñaanal kenn day làmbatu rek gis nga ñaanal ñaanal kuy tukki wala ñaanal mbër nag maanaam yomb na mais gis nga samp mbër ba kenn du ko mën a daan wala samp mbër ba moom mu xam bisam xam bis yi nga xamante ne si kum ci jàpp dalay daan xam bis yi nga xamante ne si gënul ci moom fi mu ne tey boo xoolee Modou Lo Ama Baldé bii nga xam ne jàppoon nañ ko day mel ne tey Modou am gàllaaj dëgg moo mooy premier pas bi ko génne waat ci affaire bi waaye day mel ne Ama Baldé itam am gàllaaj dëgg moo waral moom it mu amaat plaisir ba yëf yi demee nii mu demee kon day day day am day am nit fu muy toll foo xamante ne si day am ku naan ko bis bi nii ñu ko jàpp gënul ci yow fi mu ne tey boo gisee tey ci message rek Sonko bi ñu renvoyé bi ñu renvoyé euh, démb démb projet bi ñu ko renvoyé kañ lañ ko jàppaat le 2 mars. le 2 mars googu del bàyyi xel lu bëree bëri li Ablaye li lu Macky Sall di def ñoo xam ne daf leen a éliminer daf leen a yàqal ci 2 mars wala trois mars boobu ci lay doon. kon loolu da nga ciy xamee ne bis dafa am nit bisam dafa am nit tabaxam dafa am gis nga. te Sonko nag na def tere attention ci bisu ci ci bis boobu noonu ñu ko jàppal képp koo xam ne da ngaa pare pour jàppale Sonko bis boob bu ko woyefal comme ni nga woyefale woon bisub dem bi bis boobu bokkul de parce que bis boobu la bis ta boo xamante ne si ci mag Sall comme ci masa songu daan na la demal nga xool kañ la songoon Karim Wade demal nga xool kañ la songoon Khalifa Khalifa Sall demal nga xool itam lan moo tax bii jàll ele maanaam mars bii jàll kañ la ci songoon Sonko ba yëfi ba réew mi tànge woon noonu te gis nga kum ci mas a dalee daan gis nga diggante boobu li muy kii am na diggante bu mu ci téye Sonko parce que moo xam benn moo xam benn fan la wala ñaar wala ñett am na ci diggante boo xam ne ci ay loxoom la nekk te gis nga bis boobu noonu Macky Sall waajalaat na ko jekkuwaat na ko te it maanaam mooy bis bi ñuy dëggaat muy le 2 mars wala 3 mars kon ñoo ngi wax képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi ak moom nga def tere attention bu baax a baax ci bis boobu te Sonko bàyyil xel